Cheikh Moustapha santal dayob cante yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Moustapha Cheikh Moustapha santal dayob cante yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Moustapha tëddal nang nelaw yaa Moustapha ñépp mokk nañ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 ahmadu abdalaay axni bisimila barke borom touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu mbokk yi ñuy seetaan foo leen nekk ci réew mi wala bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo ak ziar yi xalif général de mourides Serigne Touba Cheikh Mountakha Mbacké xalif général de murit yàlla na fi yàgg loolu te waaye di ko ñaanal euh, mboolem euh, njabootuk Serigne Touba gi rawatina nag borom fi nga xam ne nii fi la ñu taxaw muy pencum Daaru Xuddoos di Serigne Ahmadul maxtar Mbacke nekk ci boppu njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha Ibn Khadim Rasoul. mbokk yi nag boo leen gisee fi ñu taxaw tey ji ci béyt yi ci Daaru Xuddoos di fi nga xam ne nii fi la lépp déparé woon ci bis bu tedd bu ñuy dëgmal muy ñaar fukki fan ci weeru muharam ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay gi. ñu ngi euh, ci màggaluk euh, Touba màggaluk Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu koy amale nag fii ci Daaru Xuddoos ñu bëri bëri ñu ngi naan màggal Daaru Xuddoos waaye màggal la goo xam ne ni màggaluk Serigne Touba la ndax ndigalam la di bis bi nga xam ne nii nag ci la ñuy fàttaliku bi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tànnoon ñëw nag dëkkaale ak boromam ci dëkk bu tedd bi ci tubaa xam ngeen ne Serigne bi ginnaaw ay jaar-jaaram bi mu nekkee njaareem fukki at ak juróom yu mujj yi bi suñ borom dogalee nag mu namm déeyale si ak moom ci la joxoon nag ndigal Cheikh Mouhamadul Moustapha ci atum 1927 ci guddi gi mu andi ko fii ci tubaa bis boobu nag Serigne tubaa Cheikhul Khadim moo joxe ndigal li ne fu waay mën a nekk rek na ñëw fii ci tubaa màggal ko fii ci Daarul Khuddoos nag xam ngeen ne mooy capitalu Touba waaye mooy bërëb bi nga xam ne nii fi la murit yëpp daje xam ngeen ne nag màggal gi ñu koy amal ak léegi yàgg lool. képp koo xam ne ni yaa fi nekkal Serigne Modou Moustapha ak murit yëpp rek àndandoo ko di ko màggal ñu koy dundal ci jàng alxuraanul karim jàng xasaayit julli ci yonent bi bernde jokk ak mbokk ñaan di nekk bis boo xam ne ni nag lim uh, ëmb ci ay xéewal ak ay tuyaaba ay ngëneel bëri na ndax Cheikh Mouhamadul Moustapha waxoon na ne buñ toppee taarixu bis bi képp koo xam ne ni nag guddeeg tey gi ñuy dëgmal fekk na la fii ci tubaa suñ borom setal na la wecc ci ay bakkaar kon bis la boo xam ne nii uh, bisub xéewal la bisub ngëneel la waaye bisub ndigalal Serigne Touba édition 2020 nag xam ngeen ne ren mu ngi daje ak mbas moo xam ne ni dafa am ci àdduna Sénégal jël ci wàllam liy tax euh, mbas moom du yaatu di euh, bañ a jaxasoo takk ay masque et cetera di laal bépp euh, gel boo xam ne ni wala gel yi nga xam ne ni dañ koy laal ngir xeex ak jàngoro jooju xam ngeen ne Covid bi ci contexte bi tax na lu ëpp ci xew-xew yi. ren ji bu fekkee amal nañ ko itam amaluñ ko nañ ko daan amale lool nag euh, màggal gi daf cee tabbi ki nga xam ne nii moo di xalif général des mourides ginnaaw bi mu joxee ndigal Cheikh Ahmadul Mokhtar mu joxaat ndigal mbooleem taalibe yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew wala bimu réew mi ñëw fii ci Touba ñu sàmmonteek euh, ndigal yooyu bokk na ci takk ay masque ni ngeen ko gisee nii ci mbooleem buntu kër yi Serigne Modou Moustapha yi mbooleem taalibe yi ñëw moo xam muy góor jigéen mag ndaw rek ku nekk yaa ngi góor góorgóorlu yor sa mask yor sa gel waaye di sàmmonteek euh, ndigal yooyu nga xam ne nii bàyyi ci kër docteur ngir jàngoro ji euh, bañ a yaatu loolu nag tax na ñu def ko ci contexte boo nga xam ne nii jëfe na ndigal li fi nga xam ne nii moo di daarul xuddoos ñu taxaw nag ci penc mi penc mi nga xam ne ni euh, wax nañ leen ko léegi fii la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul déparé woon ci atum 1895 dem ci tukki bi lépp euh, door ñëw nag indi Serigne bi màggal yi yaatu waaye màggalu tey gi nag nekk na màggal goo xam ne wax nañ leen ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo joxe woon ndigal li moo tax képp ku fi nekkal Serigne Touba képp ku fi nekkal Cheikh Ahmadou Moustapha doo def lu dul gën koo fullaal gën koo jàpp gën koo dundal li mu ko bëgg woon alxuraanul karim xasaayit julli ci bi bernde jokk ak mbokk euh, tuub ci suñu borom ndax wax nañ leen ko léegi bisub tuub la bisub la ndax euh, guddi la goo xam ne ni mbooleem njariñ yi rek lamboo na ko mbooleem njariñ yi rek lépp lu ci waay aj rek mën na ko euh, daal di euh, fas suñ borom defal ko ko nin ko ànd ak yéen nag xam ngeen ne dinañ dem ci buntu kër yi mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha gi nga xam ne ni ñoo nekk fii ci Daarul Xuddoos xool nañ koy màggalee ziyaar yi mbokki taalibe ni leen ko waxee léegi bàyyi ko noonu fu nekk ñëw ngeen fas koo ànd ak ñun di ñaan nag ci barkeb Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mbas mi nga xam ne nii ren dafa daje ak màggal yi mu jóge fi ba faw di leen jaajëfal ci topp gi ak ànd gi jërë ngeen